tay ñu nekk ci jotaayu ñen fukkeel ak euh moy numéro 43 ki neena na dafa gis euh, soxnam ci gënt ma ngay ndialo gis sa soxna ci gënt muy da firi ñaawuk mucc danay firi xeyna na ñaawuk mucc seen da danay firi tamit ak wor danay firi tamit ak càcc muy ci yeen ñaar ñep Eh, ci seen diggante maanaam keneen dafa gént gis papaam ak yaayam nee na ña ngay féey ak moom nee na mel ni ñoo xam ne dañoo jëm dëkk boobu ñuy wax France nee na waaye mujj ñoo continuer dañoo mujj jàdd ba gis na sax benn dëkk bu nekk Casamance aussi gént di fee ci ndox baax na bu fekkee labo nuuroo te ndox ma tamit deful benn dégât kooku fee ci ay xéewal la ak i bànneex incha allah yow say jur kii nee dafa gént maanaam gént nag di tukki moo xam egg nga wala eggoo mooy jóge ci situation jëm ci beneen situation bu ko dàq walla jóge situation bu neex jëm ci situation bu naqadi sa dépend ca fa nga jógee ak fa nga jëm naka la mel kii neen dafa gént nekk ci benn ci place liggéeyam fa mu njëkkoon nekk nekkatu fa léegi nag waaye dafa gént nekk fa nee na benn mbokkam ñëw mu di ko jaay gént nekk foo njëkkoon nekk kooku danay ware nostalgie boo xam ne am nga ko fa di ko xalaat wala ay fàttaliku yoo xam ne yaa ngi ko fay def waaye tekkiwu ne da nga fay delluwaat ba tey nag gént dellu foo jógee woon bu fekkee fa nga nekk jamono bii moo dàq nga gént dellu fa nga jógee woon danay firi deltu ginnaaw keneen dafa gént gis papaam bu ndaw nee na moom mu romb ko mu romb papaam bu ndaw ba ma ngay saraxe laax nee na mu daal di wax benn xale bu jigéen tànne ko demal nga lekk ca laax ba ñuy saraxe gént ñuy saraxe kooku ay musiba la ak ay balaa yuy jóge ca kay saraxe euh, di dem yoo xam ne yàlla dana ko ko faral dana ko ko jeñal boo ko ko mënee wax mu saraxe ko moo gën keneen dafa gént ku jigéen koo xam ne doon na génn ak moom mu nekk ci benn bis tata nee na nag moom ma nga tiim xale bu jigéen ba di ko létt nee na xale bu jigéen boobee am na keneen ku ko doon labat koo xam ne doomu nijaayam la ci moom wala doomu bàjjanam nee na mu wàcc daal di leen bàyyi ñoom ñaar ci oto bi gént di létt koo xam ne mos ngeen a génn kooku euh, cofeel la goo xam ne yaa ngi ko ko dencal ba léegi wala moom mu dencal la ko ba léegi gént di ko lett muy wane ne yàlla mën na def ngeen daje dajewaat euh, ci euh, ci maanaam ci daje woon boo xam ne bu rafet la mën ngeen nekkaat ba nekk sa soxna bu fekkee amagul borom kër bu fekkee am na boroom kër nag mooy souvenir yi nga xam ne jàppoon nga ko ci boobu kii neen dafa gént dafay faral di gént di gis ay dem joor ay dem gannaaw kër balaa ñu jeexal ci sa gént boobu gént nekk ci oto baax na xéewal la yiw la baax na lool nga nekkoon ci nag ba baa nga yeewu moo gën moom ci boppam moo ne day faral di gént di gis ay gannaaw kër mu di ko taq mu jóge ci moom mu di ko taq gannaaw kër ci gént euh, qulnaahu miraaran wa takraaran laysa illa risq mal nekkul lu dul euh, wërsëg ak alal gént gis nga ay gannaaw kër comme niñ ko yàgg a waxee nee bii dafa gént ba léegi ndaw suus nga xam ne doon na ko bëgg mu nekk ci palaasu keneen ki ko doon bëgg tey mbokkam di doomu bàjjana nee na mu nekk fa daal di fay gis ay dàll yu bees dàll ci gént baax na dàll ci gént danay wane tukki dàll ci gént danay wane tamit boo ko ñàkkee aajo woo ci alal boo ko amee soxla boo amoon dara faju ci wàllu alal wàllu finance loolu lay tekki ki neen dafa gént nekk ci benn place ànd ak benn soxna bu fa nekk koo xam ne ko am pouvoir la neen daal bàjjenam la koy niru nee na nag kooka am lu mu bëgg a wuti mu ne ko bàyyil ma demal la nekkee menn genre garab bu mu doon jënd noonu daal nee na ci loolu rek bi mu génnee ci guddi gi fekk heure couvre-feu la nee na ay policiers benn policier dàqal dàqe ko ba mu dugg ci biir kër gi nee na mu dugg ci kër gi topp ko di ko xool di ko seet nee ci noonu mu génn bàjjanam génn naan ko xanaa boo dàqee nit ba du dugg ci néeg nga ba woon koo bàyyi nag nee na moom mu génn daane ko waa ma wax mu naan day dóore ak yetam nee na ci loolu bàjjan ji daal ni ko xaaral mu daal di jël daal di jël téléphone daal di woote daal ni ko sa chef laay woo ci noonu mu daal di yeew gént ñu lay dàqe mu baaxul gént di daw ay problème la ay jafe-jafe la baaxul fenn ndax kuy daw ku nekk daa am loo tiit moo tax boo ko géntee baaxul amaa nag gént koo xam ne boroom kàddu la boroom pouvoir la kooku baax na cër la boo xam ne yàlla dana la ko jox policier ci gént yàgg nañ koo wax danay firi ay problème ak ay jafe-jafe danay firi tamit sécurité danay firi tamit malekol mawt <coughs> policier ci gént kon sa gént loolu lay firi amaa nag téléphone ci gént xam naa danañ ko gën a leeral waaye téléphone ci gént baax na ay soxla la yoo xam ne dana faju waaye tamit ay e, toxu yoo xam ne da nga ko toxu maanaam moo xam ci wàllu liggéey wala déet maanaam ay jaabante yoo xam ne da nga ko jaabante daal lu bëri dana koy firi nee na dafa gént mel ni ku nekk ci benn stade am benn xeetu sport bu fa xew bañ mi temps nag mu génn ba mu génnee mu dugg ci benn kër fekk na fa benn xaritam boo xam ne ñoo bokk ci li ñu yëngu ñoom ñaar nee na kookee ma nga yor benn sac di waxaale benn moto nee na ci loolu moom ma nga dem di entraînement ba pare for na dem na ci benn garabu siddéem for fa ay siddéem nee na xarit bi ñëw ñu ànd ñoom ñaar di entraîné waat ci loolu romb na ay oto maanaam oto yi di romb nit ñi di leen xool mel ni ñu leen seetaan ci loolu benn xale daal di jël benn pistolet daal di dem ba ci policier bi jox ko ko ñoom ñaar ñu ànd bañ àndee dem ba ci policier ba daal ne ko daal di ko mel ni ku koy ñaan autorisation pour dugg ci benn place ngir euh, def fa seen entraînement ci loolu gis nañ fa benn oto nee na for na fa tamit ca biir fañ doon entraînement we benn téléphone gaaw dugg ko ci poche bi xarit bi mu naan ko ndax doo ko taal mu ne ko déedéet giraawul ñu ngi jàkkaarloog ñaari jigéen yu na foofu mu nëbbu téléphone bi ci poche ci loolu gis na fa benn pax bu mag nee na ba gisee pax pax bi euh, nee na euh, ba muy génn daal wax na wax na wax na benn xale bu jigéen daa ne ko ko jottale saag bi nekk ci biir pax mi ba mu ko jottalee bañ fa jógee gis nañ benn tabax bu mag ci loolu gis na benn nag boo xam ne mu nga ñëw di ko song bu koy demee bay song rek mu daal di ŋaayu tànk yi nag bi jaar ci ba mel ne mujj nekk am fo nit ñi di ree gént gu ni mel <clears throat> gudd na nag moo tax ñu résumé ko la muy firi mooy euh, nit ki la ngay yëngu di ca sonn guddi ak bëccëg boo tëddee rek mën nga koo gént gént ga sax mën naa am mën naa bañ a am benn signification ni ki ki nga xam ne day yëngu ci wàllu sport di gent di entraîner yengu gam ci yengu rek motax mu di ko amaana gis stade place bu mbolo di daje baxna ndax mbolo ci gent aduna la yiw la xewal la réussite la tekki la muta ci gent nak moy nit ko xamne day jël bu ko xak ko gis mu yor ko wala ku koy jënd moy ko xam day ay jël ay décision yo xamne day du xalat manam mom aduna lum lu ko neex rek def manam du xalat du setantal Eh, siddéem ci gént tamit baax na xéewal la yiw la lu baax a baax la yiw yàlla la eh, amaa nag pistolet ci gént danay firi sécurité ak kaaraange policier ci gént wax nañ ko sànq day firi ay problème ak ay jafe-jafe niki tamit ay jigéen nga gis leen ci gént rawatina bu dee ñu rafet danay firi àdduna bu la jublu si ak sa téléphone ci gént danay firi Euh, toxu jóge ci place dem ci place ngir am yiw ngir am lu baax danay firi tamit ay aajo yu faju ndax bëri na bu sonee aajo bu faju lay sone amaa nag nag ci gént danay firi at mu neex atu yiw atu barki at mu neex gis ay nit ñuy ree ci jëf jooy def kooku ree ci gént nag baaxul naqar la xëy na euh, nag boobu doon jaar ci sa suuf yàlla yi ñuy ree euh, xéewal yi bu ñëwee dana am ñoo xam ne daal du leen neex nee na dafa gént gis ay bandi ci këram jëm ci këram waaye egguñu di ko agressé ne ko kaañ dem sa kër waaye egguñu gént gis ay bandi de kooku mën na firi euh, safaan ndax euh, mën na firi ay nit ñoo xam ne daal baaxul mën na firi ay noon mën na firi tamit ay gàllankoor yoo xam ne dangay jànkoon jànkoonteeg moom ci dund gi ndax ñoom dañuy dog nit dañuy gàllankoor nit ci wàllu am-am wala dégg nga ba fa mu bëggoon yegg du fa egg kon mun na firi ay noonu mun na firi tamit ay xéewal euh, dégg nga wala kaaraange goo xam ne danga ko am daal ci sa dund ñeen dafa gént euh, gis euh, këram véranda beeg yëpp daal di taa taa ndox ndox de bu fekkee deful dégâts te dañul ci nature am na mu mel la mel couleur bi changé wul dara changé wul lu baax la ci gént xéewal la yiw la barke la bu defee dëggaan ak ay la nee dafa gént mel ni genn wàllam gi dana koy faral di gént lu bëri sax nee na genn wàllam gi dafa yàqu daal mel ni dafa dafa paralysé wala dafa sem wala daal dafa am feebar bu ci nekk nee na nag ci gént gi mu gént gis ba sax soxnaam am ay commentaires yu mu ciy def neen daal gis na ci gént gi ba léegi xaritam intime ki nga xam ne mooy xaritam dëgg-dëgg nee na muy xoloog moom bay mel ni kuy xeex ak moom nee na ci loolu gis na benn doomu baayam euh, bu mel ni kuy intervenir ba mu jël ko am kum jël ci ñoom ñaar xaw dama xamagul dama xamatul xarit bi la wala doomu baay ji dóor ko ci garab gi ci loolu tamit gis na benn papaam mu ndaw boo xam ne génne na àdduna ci gént gi ala li xaalis gént di xoloog sa xarit wala di xeex ak moom baax na lool mooy njëriñ boo xam ne dana ko jëlee ci yow ak njëriñ boo xam ne dana ko jëlee ci moom maanaam seen jëriñante xeex boobu nga gis mooy seen jëriñante dana gën a yokk ku nekk dana gën a jëriñu ci moroomam lu dóoree gën a metti nag bu fekkee moom nga jël dóor ko ci garab gi <clears throat> mooy dana jëriñu ci lu bëree bëree nga jëriñu ci moom lu bëri bu fekkee tamit sa doomu baay bi nga dóor ci garab gi kooka tamit da nga da dana jëriñu ci yow yow tamit da nga jëriñ ci moom amaana gént gis sa papa bu ndaw bu génn àdduna kooku ci gént mën na nekk dafa soxla ay ñaan ak ay sarax yuñ ko defal euh, bu fekkee tamit ci melokaan bu neex bu rafet nga ko gis su boobaa day wane ne mi ci jàmm fa muy dund ca bar sax keneen dafa gént benn politicien bu mag boo xam ne ndaw yi bëgg nañ ko lool moom mu gént gis ci benn wetu géej euh, benn tefes nee na ñu daan ne fii de diw moo ko moom daan ne lam ko jëndee nag mat na milliard nee ci loolu ma ngi fay tabax benn kër bu ngandee ngande kër ga am na lépp piscine nag jardin gi yëpp ak yeneen kër ak ay hôtel nee na nag ci benn ci hôtel yi moom nekkoon na fa ba fa nekkee ci biir néegam am ñu ñëw di ko déranger ba am benn waay bu ci dóor ba mu dee nee ci loolu nag muy daw bi muy daw mu ngay xuus ci ay géej géej gum jeexal rek dem ci gi ci des gént gi ba mu jeex daal ndox la ndox nag xéewal la kon sa gént yëpp xéewal la yoo xam ne dana ñëw incha allahu taala balaa yàgg te da ngeen ci jëriñu euh, danay firi tamit gént gis nit ku toll noonu ku siiw bayre danay firi réussite danay firi xéewal gént gis ku siiw moo xam ci diine la wala ci àdduna la lu baax la nee gént gis ay kër yuñ tabax yu rafet ak ay otel kooku tamit yiw la xeewal la moog ndox meeg ku siiw kee géej gi yëpp daal baax na dafa gént nekk ci ab tefes nee na di wut ay ay jën ci noonu nee na daal muy wut ay jën gis na fa benn dëkkandoom moom it day wut jën mu ne ko boo ko jëndee après ñu teg ko ci charrette ba la jën ci gént wërsëg la baax na lool charrette ci gént tamit baax na Euh, avancement la mok auto yeb dañuy firi avancement dawum bu jigéen bu ndaw ben xale bu jigen bu ndaw la fekk ci ben nek muy dem gannaaw kër euh, xale bu jigen ci gent aduna la ni ki non gannaaw kër alal la ak neena dafa ñew senegal mi ngi bitim rew mu ñew senegal gis ben kër ci gent bo xamne ne ko fonduma way kër dal yor jëmmi kër nee na ñu ngi koy jaayee ci lu toll ci fukki million ak juróom-ñett dix-huit millions nee na nag moom ak ay xaritam ñoo taxaw di ko xool ku nekk bëgg ko nee nag ñi ngay xool ba xam fondement fondation bi baax na nañ ko defee waaw wala déet <clears throat> nee na ci noonu mu xool gis juróom-ñaari birig yoo xam ne mi ngi ci fondement bi nee ci loolu tamit mu gis beneen fondement bu bokkul ak juróom-ñaari birig yooyu kon fondement ba xoot na lool mu daal ne nag na ah lii moom kenn waranteetut ak baaxam baax na wala baaxul waaw baax na daal ci loolu ci gént gi nee na ma ngay compter ay oto yoo xam ne ci gént gi moo ko moom te xaalis ba mu war a jëndee kër gi ca la nekk moo tax ma ngay nëbbu sax ngir bañ ñu xam ne moo ko moom nee na ci loolu euh, moom mi gént na ci loolu kon ñu feet firi gént gi ba pare mu ne kër gu ñuy fondement ci gént baax na lu baax la kooku commencé yiw woo xam ne dana continuer lay firi wala commencé projet boo xam ne yàlla mën na ci def barke ndax fondation bu dëgër ci gént baax na yàlla mën ci def barke daal projet boo xam ne euh, da nga ko commencé wala yaa ngi ci te dana wéy euh, mën na nekk nag projet lu mu doon euh, nee na ay oto ci gént danay firi avancement danay firi xéewal ak barke ci liggéey ca la ngay yëngu waaw rawatina bu fekkee yaa moom rawatina mu am xaalis ci biir xaalis ci gént bu fekkee ay billet la ci gént baax na <clears throat> fekk sa ki neen dafa gént moom ci boppam moom mi gént gént gële moo géntaat nekk ci benn kër boo xam ne moo ko moom ci gént gi waaye moo ko moom tamit ci lu dul gént yoo xam ne tabax nañ ko ba pare nee na ci loolu benn côté boo xam ne daal ma ngay sikk sàkk mu karu ko wala du ko karu ma ngi cee waxtaan ak maçon bi moson bi naan ko boo defoon benn ton tonne ciment rek daal mu baax dana egg kooku la muy firi mooy xalaat boo nekk di xalaat ca nooy eggalee kër ga nii laa koy def wala naa laa koy def dana waral nga gént ci lu ni mel ànd ak nag gént kër gu pare gu baax gu rafet kooku tamit àdduna la réussite la baax na waxoon nañ ko sànq hakaza gént di waxta waxtaan ak maçon tamit baax na ndax <clears throat> dund la boo xam ne yaa ngi koy tabax te ni nga koy tabaxee mi ngi ci yoon bi waaw baax na daal ba léegi nee na temps yi daal gént yu ni mel dana koy dikkal ba géntaan na sax ci mbiru kër ba léegi muy dox ba gis benn suuf bu rafet am ku naan ko xanaa doo jënd ci suuf si fekk foofu am na fa kër tamit goo xam ne pare na mel na ni moo ko moom nee na Euh, ci loolu ma ngay waxaale ak benn waaye ay birig ndax nee nañ ko woon place bi daal boo birigee doo am foo ko teg te am na ku fay yëngu ci wàllu birig nee na ma ngay waxaaleek moom bàyyi na xel loolit la ko waa ji wax ne ko suuf su rafet si daal mën nga fay jënd nee na ci loolu euh, mu ne daal bàyyil daal <clears throat> ma eggale la ma fi commencé ba pare mooy kër gi euh, comme sama xel mi ngi ci ba léegi ba tey rek kër ci gént baax na yiw la xéewal la àdduna la gis suuf suñ mën a jënd tamit ci gént baax na suuf yiw la xéewal la ki noonu tamit supporter ay mbir la yoo xam ne xëy na dana metti waaw wala déet ndax suuf day muñ boo géntee suuf it danay firi muñ ci gént nee na dafa gént euh, waajuram wi nga xam ne génn na àdduna bari na lu mu koy gént du toog ñaari fan yu mu ko géntul nee daal gis na ko ci gént nee na ci bi mu ko mujjee gis daal dafa sàkku ci moom mu jox ko mu lekk mu jox ko mu lekk ba pare moom ak beneen cousin boo xam ne ko kooku tamit génn àdduna ñu lekk ba pare mu bëgg leen a daggal xaar xaal papaam ne ko xaaral ñu dem julli ji jumaa ba ñëw nee na papa ji ba mu demee nag ñëwul waaye cousin bi ñëw na gént sa waajur ci melokaan boobu mooy soxla na ñaan soxla na nga saraxel ko bu fekke ci melakan bu rafet nga ko genti tamit day wone na ma ci jamu ci bar sax waaye ci mën di am dal ñaan ak sarax bi nang ko def insha allah defal ko ko mom ak sa cousin defa neena dafa genti euh ñu naan dawlen ben benn yoonent bi mo fi ñew dawlen ngeen dem ziyara ji ko waaw ñu ne ko nak sa sa rakk bi sax jitu na la fa mo la fa jitu bam deme ba egg ñu ne ko mo la fa jitu mo lay ziyara nee ci loolu daal gis na ci gént gi ñuy lekk deretu doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku yiw la xéewal la lu baax la gis doomu yonent bi ci gént amaa nag deret ci gént moom ay bàkkaar la xëy na mu nag comme doomu yonent bi la muy ay bàkkaar yoo xam ne dañ la koy jéggal yow mi nga xam ne yaa gént lu ni mel nee na nag beneen gént bi euh, yonent bi la gént waaye daal gisu ko jëxëran ci gént gi waaye ci misaal daal dafa mel ni dañ ko ko misaal ci gént yéen bi salaa salaam nag nee na ku ko gis ci gént moom nga gis ndax seyta seytaane mënul jël melokaanam nga dem ba koy waaj gis te gisoo ko mooy jaamu yàlla waaye say jaamu yàlla war nga ko wala bok sa sunna yoon bi yoon bi salaa sunna mooy fi yoon bi salaa salaam tegoon tànkam war nga cee gën a góorgóorlu nee na bi dafa gis yonente yàlla isa alayhi salaam nee na ma nga ferankulaayu jàkkaarloog moom moom it mu ferankulaayu nee na yonent yàlla Isa ci gént gi mi ngi yor benn croix boo xam ne lumière mi ngi ci gént gi ci yonent bu ni mel kooku xéewal la yiw la lu baax la amaa nag euh, yonent yàlla Isa moom du chrétien jullit la ndax yonent yëpp ci millatul islaam lañ leen yónni ci suñ gëngoom ñun waa lislaam euh, buñ sukkandikoo ci alquran ak waxu yonent bi yonent yëpp lislaam lañ doon woote benn diine bi la day fekk na yonent bu ñëw rek yàlla ak sa mission nam la koy gaarale ak nam la koy sante lam cay yokk ak lam cay wàññi ak ci coobare moom yonent moom say euh, suñu borom tabaraka wa taala euh, amaa nag euh, kurwa bi bi mu yor ci gént leer ci gént baax na ki leen dafa gént gis xaritam mu nga gaare benn oto xaritam boobu beneen xaritam gaare gaare oto ci kanamam nee na mu ñëw nag di ko leeral naan ko oh, fekk moom ba mu koy ba muy wax ak moom it moom it ma ci oto naan ko man maa ngi jógee Europe bii oto bi maa ko moom bii sama xarit moo ko moom ci loolu jox na ko 5000 francs daa ne ko mooy sa sëriñ gént oto baax na avancement la yiw la xéewal la lu baax la ni ki noonu tamit gént ñu jox la xaalis baax na bu fekkee du weccet rek baax na euh, mille francs boobu xéewal la yiw la manam ci la ngay yëngu dal da ci gis avancement ki leen dafa gént euh, ci ko génn génn ci couvre feu bi moom ak ay xaritam di dox police japp len yobul len ci benen place bo xamne du sen place ñom police ña nga def ñaari sappé and ak mbolo mu bari nee na lolu euh ay dëkkandoom ña ngi koy lacc nan ko ndax mu gis benn dëkkandoo ma nga sol tenue policier ñu koy laaj ba xam kii policier la mu neen leen waaw commissaire de police la policier ci gént danay firi problème policier ci gént danay firi ay problème ak ay jafe-jafe baaxul danay firi tamit sécurité ak kaaraangi danay firi tamit couvre feu bi ak na ci nit nit ñi defee seen xel lu jomb ño xamne buñ mën nañ ko ngir limu xew ci jamono rek waaye ala xaal tamit jamono mbooloo ci gént xéewal la yiw la àdduna la bu la jublu si nee na ki muy génnal la gént di waxtaan ak moom di waxtaan ak maanaam xaritu ki muy génnal koo xam ne amoon nañ problème ba ku nekk jël sa yoonu bopp nee na nag mel ni xarit bi dafa bëgg a labat moom nee na ma ngi koy fàttaliku ne ko ah xanaa xamoo ne diw sa xarit laa doon àndal suñ diggante xanaa xamoo ne ko ak koku dala doon nax rek mom ma doon goro yo ak keneen kay nga and ak man ndax lool mo gën ci yow ci loolu gi yor na satala jëm ci toilette ba am ñetti xale yu jigéen yu koy yund mu am kum ci dàqe ba koka téré ji ci mbolo mo xamne ñi ngay julli néna mu duma ko door yu metti manam gent ñu lay wax lool ci ki doon gennal tekkewul ne lool mo xew tekkewul ne dala doon nax euh waye tekkiwul na tam xarit boobu di wax ak yow da laa bëgg mais yow ci sa bopp yaa ëmbal cofeel ki nga doon génnal ba léegi xalaat yoo ko xalaat moo waral ñu war na loolu ci gént nee na sax ba bi mu yeewoo loolu xarit bi wax ko ci moom ne ko mi ngi génn ak keneen tam ba da koo bëgg a takk sax loolu metti na ci xolam ba bi mu yeewoo xol baa ngi continuer di metti day tekki ne yaa ngi ko bëgg ba léegi te yàlla mun na def ngeen àndaat nena tamit gënte jëm ci douche douche ci gënte danañ fi di ay problème ci walu am-am ci walu finance euh, ay xalu jigen ci gënte nak aduna lu bax la di door nit ci gënte moy dang ko jëriñ lu toll ni lañ ko na metti ak mu ñaka metti gis mbolo muy julli koku yiw la xeewal la baax na dafa gënte nek ci ben gis ben moto bu mag ci buntu appartement nee ñu ne dekk na moko ma ngay lacc nak nan lu muy def fi ak kan moko mom moto ci gént dana firi jëf yo xamne ne koy def do ci xalaat do ci diiso ngay rek def te man nga dal ci ay erreur dana firi tam dépenser alal ci anam bo xamne ne jaarul yo ki neen dafa gént gis ki nga xamne mom la doon génnal bu yagg nee mu ñew seen kër ma nga sol euh ben jalla bi bu weex waye nak nee na ci genti gi faale wuko moy lima la wax rek cofeel gi nga amoon ci mom mo jeexagul motax nga koy genti ci yoyu la melokan te yalla mën na defit ngeen andat mën na amit mom mi ngi lay ba legi neena dafa genti gis ben xale bu jigen bu ñëw daan na ko wuyul wuyul diw te diw mom mom xam nako ko xamne ko labat la ci la jitu neena mu ne ko wuyul de mu bañ nee na rek mu xëcc loxoom rek mel ni ku koy déeri daal di koy yóbbu ba ci benn kër famille ma nga gis waa ji mu ko doon wax wuyu ko ma nga nekk ci kaw benn ci kaw miir ba ci kër googu ndax xaa nee nag mu gis ko rek tiit ndax xaarewu ko woon foofu mooy ne que euh, kaay wuyu diw te diw moom mosoon na la labat kooku nos dañuy firi nostalgie ak rëccu goo xam ne yaa ngi koy rëccu ci Euh, cofeel goo xam ne am nga ko euh, maanaam ci li paase daal xëy na bàyyi ñàkk sëy goo ak sëy ak moom reccu goo koy reccu danay waral nga di ko gént ci melokaan yu ni mel ñu naan la kaay wuyu kooku yu mel noonu gis nit mu nekk ci kaw nag baax na réussite la xéewal la kooku mang ci mang ci ay xéewal yu mag a mag gént gis euh, yaayam nee na dafa gént gis yaayam di nga xam ne génn na àdduna dafa am ku gënt gis yaayam manam dafa gënt dal am ku nan ko kay wuy sama yaay wala sama yaay neena namu na la te yaayam joj génn na aduna namu na la gogu moy soxla na say ñaan sa yaay joj génn aduna soxla na tamit say sarax namu na say ñaan ak say sarax inshallah allah ko ci bu fekkon yaang ci nang ko yok bu fekkon ci nang ko koy defal neen dafa gënt dal melni ci suuf bi mu tuddon xamul dafa ko gënt wala da xelmati da ko yëkëti rek melni da cey gis xaj neena yëkëti bopam gis xaj xaj ci gënt nak non la shaytané la baaxul neen da fay faral di gënt di yor ay téléphone neena euh léeg-léeg mu gënt jël numéro nit neena nak bi ko mujjé gënt téléphone bi dafa nodd mu jël ko mu daal di fay gënt téléphone baxna da day firi aaji yu faju wala di dox di dem ak ngir di dox di dem ak ñew ngir am réussi ci la ngay yëngu nee dafa gënt nekk ci auto ben taxi nee jëm fu ñuy jaayee auto nee taxi bi dem ba yóbbu ko ci fu ñuy jaayee ay sept place mu ko déedéet fu ñuy jaayee 4 4 la soxla rànd ci nee na nag ñoo egg ci noonu ci gënt gi téléphone am sonné na daldi noddu nodd mu yëkëti ko mu daldi fay fekk batterie bi dafa déchargé wu lolu moy da nga songu projet bo xam du egg ay gënt ay auto na ci gënt façon auto bu mu mën di firi avancement ci dund bi bu dé 4-4 nak mo gën néna dafa gënt gis euh négu kër go xamné négu ñax mo fa nek néna nak amna kum andal way xamul kan la néna ci gënt gi gis na ben magget bo xamné sër la oddoo waaye yaramu neen la def néna ma nga tim ñaari pan panu buy ak panu bisap ji melni da koy jaay paanu jus ci gént xéewal la yiw la lu baax la euh, cawartaane la ci wàllu liggéey liggéey nee na gént gis ab màgget nag baaxul ay problème la ay jafe-jafe la hakaza rawatina bu def bu solul yëre lii la fi woon ci seen émission firi gént mooy ñeent fukkeelu jotaay bi ak ñett ngeen àndoonte ak seen mbokk seen xarit Muniru Ñang wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu